ñu ngi koy naqarlu te xam ne nag àdduna moom noonu la ndax sëñ bi nekkoon na koo xam ne lépp lu muy wax ci àdduna ci dëgg rek lay wax ndax nekk na lu ñuy naqar loo xam ne àdduna bi ñu bëri am nañ ñu sëñ Cheikh moom fii génn at ba at lépp lu mu wax ci dëkk bi rek ñun ñëpp a ngi teg seen i bët ndax jamono ba actualité xam nañ ba comme gouvernement bi nu mu demee ni moog opposition yi yàgg na cee wax. ak doomu aadama yi ni ñu nekkee ni ñuy dundee ak problème yi nar a ñëw yëpp doon na ci artu yu bari doon nañu ci wax ñu ko junj mais nit ñi nag la plupart bu waxee daal gaay yi duñ duñ mu wax la plupart bu ñu wax boo waxee dañu appliqué ñu wax affaire bi daal naqari moom boo ko xoolee suba gi nu mu meloon nga xam ne asamaan si ak nu mu leen demee nii nga xam ne affaire bi nekk na affaire boo xam ne affaire bu naqari na doomu aadama yëpp. waaye nag kom que yàlla noonu la ñuy bindee moom ñun ñëppay dem kay waaw. kenn du Serigne Cheikh Al waaw ku baaxoon la ku fonkoon diine l'islam la ku bëggoon ndongo yi la bëgg taalibe yi bëgg njaboot gi bëgg ñëpp kom ba kooku bu demee tey jii nii bis bi ñu rek la mun a mel bis bi ñu rek la mun a mel ñëpp a koy naqarlu ñëpp a jooy ñëpp jooy waaw ñu bëgg na yàlla tis ñu si barkeem yokkuñ si ay leeram yokkuñ si ay leeram bu wér a wér. ndax moom dañu xam ne moom njabootu diine l'islam moo ñàkk daal waaw moom laay wax kon boog gars yi ñu ngi ko ñaanal gën a ñaan gën ñaan rek gën a sàmm tamit li ñu fi bàyyi woon ndax moom diine rek ko ñoroon àdduna ñoru ko woon moom diine l'islam ko ñoroon fu mu tëdd nag yàlla nekk ajanay firdaws yi gën a yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu naqarlu ko rek ndax waa ju baax moom bu demee ñëpp ñëpp a ko yëgandoo amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen ñun ñëpp la demal sa jeex moom pour ñëpp la. ak yàlla man quatre heures du matin laa ko yëg nelawaatuma bët set yàlla na yàlla na ko yàlla a àjjana te taas na ci barkeem. Seex moom tabaarakallah séentu bu baax laa ñu séentu ak jikko bu baax ak liggéey bu rafet bu baax laa moom teg bu baax nga ci wax mooy Serigne Babacar te du jur ku bon Alaaji Maalik ne du jurul du du du du du du am set bu bon du te tabarakallah lu ma ci mun ñaan yàlla na ko yàlla xaare aljanna bu ma bi naka gënal bu mu génn mu ngi doon fàttali ne leen dëkk bi dañ koo war a sangat gars yi di weddi ay waxam mais gis nañ ko si fan yi parce que accident yi bëri na te lii yëpp doon na ko wax si dundam nit ku baax la woon mais xalifa bu yombul la tamit chaque jour fu mu toll rek mu ngi doon fàttali jaam yàlla yi di leen wax jëfe leen nii jëfe leen nii jëfe leen nii léegi nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana taas ñu si barkeem fekk ñoom fa fekk ak ñoom fa ñu ko fay fekk yëpp ñoo ngi ñaan mu fekk mu mu kii leen si barke Ndiol Maka alayhi salaatu wa salaam